Mm-hmm. rek la ñu liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu gis benn Pape Alé Niang bu jeex tàkk Guy Marius ñaar demoon fa euh, ñu gisaat tim ki nga xamante ni seex Bara Ndiaye euh, benn kii bu Ousmane Sonko demoon ñoom ñaar ñuy waxtaan Cheikh Bara war a waxtaan ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko Cheikh Bara. loolu di déyante noonu mel ni loolu nag sëñ Bara waroon a gis laaj ko ko. Ah. ah mais yow Ndiaye Cheikh Bara day sa xarit. ah gis ni day faral di wax ak yow maanaam est-ce daa bëgg bëgg bëgg. sëñ Bara. waaw ah. la nekk. Ah. Sonko nekk Dakar. waaw Ndiaye nekk Touba. mais kon liñ koy jiiñ Cheikh Bara xaaral ñu liñ koy jiiñ kon am na nee nañ de maanaam maanaam euh, ci taali bi Sonko yi la bokk. sëñ Bara nga Dakar. waaw Sonko nga Dakar. waaw Ndiaye Touba ngi Touba. ñu déyantee Dakar Ndiaye Touba nekk Touba daan ne nangam la man bokkuma ak. est-ce que du ko wax ni ko wax la bokkuma ak euh, nu euh, waxal li nga war a wax. Hmm. dara bal du tàkk. est-ce que wax ko est-ce que wax war a def dara bal du tàkk. est-ce que néew di ko dee naan ko <laughs> xaadim sàmb bu ko sungu foofu mën a sungu fas kàdd la bu ko béjjee rombe mën a bopp ginaar la. man hmm. naa fekkeew ma noonu. Hmm. mais Cheikh Bara sa waay la sa doomu ndey la. sama sëriñ la. gi waaw sama xarit la. waaw Ousmane Sonko mais war na laa wax lan la wax Sonko xaaral Ousmane Sonko jullit la. waaw ah. gisoo sëñ wax ak gisoo leen. lu muy dem di déyante ah. Sonko noonu. xaaral lu tax bi ma fi ñëwee xaaral rek. yow bu buñ la xamee Sonko tax. te Cheikh Bara Ndiaye lan lay dem ba ci biir fee di su di waaw léegi. waaw te fii la ko yekkoon lu mel ne xeme ci ay audio. bu pare demaat ci moom di ko di ko waaw ay audio la ko yekkoon fii. yow est-ce que baalu ko woon àq ak yooyu sax. yow bul dugg ci polémique yooyu nan audio yi montage la ak yooyu. bul dugg ci yooyu sëñ Bara. kilifa la ngeen bëgg kenn du leen wax dara loolu. Ah, mënta na nag da ngay bàyyi ñu tontu la nag. <laughs> kilifa la président Ousmane Sonko kilifa la. sëñ Bara wowut Sonko wowut Ousmane Sonko ca ma Ousmane Sonko woowu sëñ Baara. ab livre damay fàtte sax borom livre bi. Ah. moo doon présenté ab livre am. Hmm. mu invité ñoo ñëpp ñu daje fa. Hmm. kii toog fii kii toog fii ñoom ñaar na xamante nañ seq nañ jàmm ci réew mi. Hmm. ndax boo doon wàññi ñi gën a jub. da nga ca boole ñaar ñooñu. ñun lu dagg nag moroom ja lay fekki lu baax loo gis moog lu baax dañoo war a xamante sëñ Baara Ousmane Sonko mooy kan ba sëñ du dee Ousmane Sonko. bu fa Macky Sall toogoon suñu baar déyante ak moom ndax ay kilifa lañ Ousmane Sonko nag kenn ku ne bëggoon ngaa déyante moom ci réew mii sëñ Baara nag moom yàlla da ko suturaal muy nit ku jub nit ku dëggu nit ku baax wax dëgg rek la nekkee ci réew mi ku ko bañ loolu nga ko bañee képp ku bëggu dëgg nag mën nga def sëñ Baara noonu waaye ay waxam na nga xool ba mu tàmbalee wax ba suñ joon yàlla tey amul dara lu ciy deñ te chaque jour rek naa fekk yaa ngi ci plateau yi di ko xas di ko ŋàññi te moo leen gën ndey gën leen bàyyi gën leen ci société bi mm-hmm. moom sëñ Baara kon nañ ko